programme jamaa bi la télécharge di ko xool benn par benn pour di ko xaar di jëlaat ay vidéom di jàng may raw tunkara ci ñoom par aleña mola moo gën ndax am naa xam-xam ñaw naa làmmeñ mën naa wax te xam naa li may wax te am naa audience te opposant rek dafa am bayre ndax ku mer ñëw ci yow tey nag damay jéggalu samay mbokki patriote ndax tontu bii may tontu Ahmed Cissé nii gis nga jokkoor martyr jokkoor leen ji ñu nekkee woon ci réseau bi depuis deux mille vingt boo leen waxee jox ñu ñu wax delloo leen talatuñu ko léegi ñoo jiite réew mi nawlootuñu leen yaa ngi dugg nag ci baraak bu bëri pont na buñ la waxee luy opposé wu rek ñun xam nañ ci dara ne ñi ngi koy def depuis deux mille vingt ba léegi ñi ngi ci malay kamal xamal nak ne pour nga opposer wu ak nguur yi faaw nga am ko da nga am ngor am patience am fit am jom bëgg sa réew te pour commencer nekkoo Sénégal bay bëgg Sénégal amo jom amo ngor traître nga bëgg nga lu yomb wo liggéey kon pour nga opposer wu dana yomb lol pour nga opposer wu dina la jaxé dina wex ci yow ñi ngi lay xaar nag dégg naa nga naan am nga audience ñaaw nga làmmiñ déedéet ñaawoo làmmiñ de yow ci sa jëmmi bopp yaa ñaaw te ñun sénégalais baaxoo nañ bu golo taxawee di wax dañ lay reetaan ak a tàccu ngay def say cirque nga foog na li ngay wax am solo déedéet sab ñaawaay ak sa tilim moo ñu jaaxal bañ lay ree bu dee xam-xam la ñoo la ko ëpp bu dee wax ju bon la defe naa ne boo ñëwee ci gone yi Pastef danga ko fa teg kon rek leen tayit nag engagé wul ndar ngaa opposé cinq ans ñi ngi lay xaar bul daw bul daay te mën naa waat ci kaamil ku ma ko jox na yow doo kuy opposé wu na li nit kiy opposé wu di am ba opposé wu amoo ko danga am fit am ngor am jom nangoo liggéey nag di ko jox te yow liggéeyoo da ngay wër di dunguru ak trian pour nga mën a teet dellul ginnaaw foofu nga dugg baaxul de ñi ngi lay xaar nag